voici la vraie beauté ñaw ak Cheikhul Khadim kontaan nañ jarbaat ah Salimata yow yaa nga wa yow yaa nga wane ni nag ah ah sa mbaañ moom ah parce que ah kado bi kado bi foor na ah man maa ngi fiir ah maa maa ngi fiir de maa ngi fiir ah waaw non ñoom maa ne ñëw nañu Michel ñëpp a ngi ñëpp a ngi woote ñëpp kontaan nañu ah yàlla yàlla sàmm la kontaan nañ jarbaat ah Salimata yow yaa nga wa yow yaa nga wane ne nag moom ah parce que ah kado bi kado bi foor na ah man maa ngi fiir ah voici la vraie beauté ñaw Cheikhul Khadim kontaan nañ jarbaat ah Salimata yow yaa ngi wa yow yaa ngi wane ni nag ah ah sa umpaañ moom ah parce que ah kaba bi kaba bi foor na ah man maa ngi fiir ah maa maa ngi fiir de maa ngi fiir ah waaw non ñoom maa ne ñëw nañu Michel ñëpp a ngi ñëpp a ngi woote ñëpp kontaan nañu ah yàlla na yàlla sàmm la waaw